wa radi allahu an saaxibi alxatmiyati walkatmiyati mumiddi l awliyaai wal aqtaabi sayidina wa mawlaana ahmad attijaani radi allahu anhu wa an saairi xulafaa'ihi wa ahli mahabbatihi ridwanullahi anhum ajmain rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki soppe ci yàlla subhaanahu wa taala amati nañ ñëw mbégte mu rëy ci jàkkaarloowaat ak seen jëmm yu tedd yi ngir uh, ay kàddu yu leer ñu jële ko ci jàngaley rasulullahi sallallahu alayhi wa mu tubbee ko ci alquranul karim mu mel ni comme niñ koy waxee toujours euh, vidéo yi moo ngi ci YouTube vidéo yi moo ngi ci www point njegen point com adduna bi yëpp xam nañ ko ñëpp a koy gëstu ñëpp a ngi koy seet ñëpp a ngi ciy barkeelu euh, waaye tamit jamono bi dafa toll foo xamante ni euh, interactivité bi yaakaar naa tamit luy am solo la interactivité bi luy am solo la toog di waxtaan rek ci ay tem ni am na solo baax na waaye échange bi yaakaar naa tamit lu am solo la ngir euh, li gën a am solo mooy répondre ci aspiration ak xalaat ak question ak questionnement ak doute ak incertitude yi jaam yi am ci seen diine ci seen lislaam ci seeni xalaat ci seeni gis-gis ak tamit xew-xewu jamono yi ban euh, ban lecture lañ ci war a am à lumière du Coran et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni démb euh, soo leen euh, bàyyi xel jotaay bi ñu am démb dafa am ñaari mbir yoo xamante ni euh, ba ñu xàggalee dama seetlu ne ñi doon déglu ñëpp ak ñi dégluwul sax waxtaan wi loolu lañ ci gën a jàpp moo tax ma bëgg ci ñetti fan yi ñu séddale ko ci biir waxtaan woowu ñu waxtaanoon am na lu ma seetlu ne jaami yàlla yi moom lañ ma laajaat def ci ay gëstu def ci ay gis-gis ñiy def ko seen photo profil ñiy def ko seen euh, seen seen euh, seen euh, profilu WhatsApp ñii di ko paasante ñii di ko bindante ñii di ko waxtaane am na page WhatsApp yoo xamante ni moom lañ def seen thème waxtaan ci mooy lan la plus grande chance de l'individu sur Terre est de connaître l'élu ou les élus de son époque kooku nag ñoo ngi ko àbb nag sunu cousin sunu mbokk Karamba Gassama ndax gars yi wax ji bi ma ko waxee idée bi bi ma ko waxee euh, ku mel ni soxna Zeynab Ndiaye euh, soxna Zeynab Ndiaye ak Tijani Tijaniya euh, ndeysaan gis naa ko mu définir Alaaji Mar Diop am na nu mu ko bindee Euh, Diallo bi nekk euh, le jeune Diallo bi nekk euh, ci section Ndiogu Mbodj am na nu mu ko bindee waaye sama jaam bi di Karamba Gassama moom it ndeysaan dama gis ni mu ko bindee mu rafet lool ndeysaan mu wax ne la plus grande chance de l'individu sur terre est de connaître l'élu ou les élus de son époque ma gis ni boobu dafa dajale lépp moo tax ma bëgg ñu waxtaane ko léegi incha allah sunu yàlla dimbalee am na yeneen ñett ñaar yu ci topp mooy mooy défo boobu ñu am ñun surtout ñun sénégalais nga xamante ni bala ñuy reconnaître mbaaxu nit wala kii cëru nit wala wilaaya nit wala maqaamaam daf fekk mu dee kooku dinañ yaakaar naa incha allah suba wala ginnaaw suba moom la ñuy waxtaane beneen thème bi ma ci déggaat tamit mooy ndimbal dimbalante dimbalante nit ñi léeg-léeg ki ñuy dimbali rek mooy dëj ci dëj daat lan lay dimbali dëj dëj pour lan ñu taxaw foofu naan diw moo fi indi xarak diw moo fi indi nagak diw moo fi indi nangam diw moo fi indi nangam fekk bari na luñ dëjale nit suñ ko defoon ci moom ñu opéré ko wala ñu faj ko ba mu wér peng donc du ma ko du ma ko du ma ko du ma ko du ma ko boole ñett yooyu yëpp tey dama bëgg rek ñu waxtaane euh, ter wax ji ma leen wax démb nga xamante ni nitu yàlla yëpp nitu yàlla jamono yëpp xam nañ ni wax nañu ne teraanga bi gën a rëy cër bi gën a rëy maqaama bi gën a rëy mooy yàlla xamale la wane la nga xam euh, nga xam say say say ñi yàlla fal ci sa époque ci sa jamono waaw ah, yàlla nañu yàlla euh, dimbali incha allah xam naa ni sëñ Ibrahima ngi ci yoon wi sax du yegsee débat bi dina gën a yaatu ñu bokk waxtaan comme niñ ko doon defee mu gën a rafet gën a baax tabarakallah ñoo ngi nuyu mbokk yi dugg yëpp en ligne euh, waaw di wax euh, ne gars yi nañu yaatal liggéey bi ndax euh, am na solo waaw ñu partagé ko bu baax ku ko jot partagé ko mu gën a yaatu commenter poser question contribuer même critiquer si vous voulez joxe seeni xalaat waaw dina ci am solo waaw affaire bi gën a yaatu monde bi yëpp jot ko parce que yi ñuy partagé yi ngeen di gis ñu koy partagé muy am ay cent partage quatre cent partage lépp ay saaga la ay wax yu bon la ay nit ñu yiiwa di toog di futteeku di doye di di ñàkk bopp kase ñuy animé ay musique ay caaxaan yoo xamante ni day wowal xol di la tàggaleeg yàlla loolu rek la ñi ko ñi leen ñi ko ñi mu intéressé ñoom ñoo ngi koy partagé di ko yaatal <laughs> waaye yéen ñi nga xam tamit l'islam moo leen intéressé diine moo leen intéressé mais buleen taxaw bu leen leen bàyyeeg terrain bi loolu sax dinañ ci def waxtaan spécial loolu am na waxtaanu boppam spécial mooy le fait de ne pas laisser le terrain aux autres de ne de pas laisser le terrain aux autres vide baaxul dañoo wax ne la nature à horreur du vide waaw il faut que il faut que amet mbokk yi il faut ñu jóg te bàyyi euh, euh, werante beeg coow li te liggéey dem sur le terrain <laughs> dafa am solo dafa am solo il faut qu'on qu'on qu'on kon aille sur le terrain parce que gars yu baax yi ñu xam yépp ñoom c'était des hommes de terrain ki ci gën a am solo gën cee màgg gën cee rëy gën exemple am di exemple bi gën a baax muy Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'était un homme de terrain c'était un homme de terrain il participait physiquement corporellement avec ses sens, avec son corps. Il participait à tout, que ce soit les batailles, que ce soit la construction d'une mosquée, d'une maison, que ce soit le fait de rendre visite aux malades, de s'occuper des enfants, de s'occuper des femmes. Le prophète, il s'occupait de ça personnellement. waaw ah, léegi lan moo tax ñu bëgg a toog nag ci biir kër yi ah toog ci ruq yi rek naan dina baax ak waaw sëñ bi kii naa la di lijjanti ay wax yoo xamante ni taxawul fenn gars yi occupé terrain bi sëñ bi nit ki li mu yàgg gis ak li mu yàgg dégg day dem ba mujj am jeexital ci moom c'est important il faut que ñu bàyyi làqatu bi il faut ñu bàyyi làqatu bi jug liggéey sur le terrain def tekk yu wóor tekk yu dëgër di ci liggéey di taxaw mais lu tax lu tax heure bu gars yi taxawee di def seeni euh, partager leen di di di di di saaga di wax lu bon di ñàkk bopp di werante di di di di xiiroo di ŋaayoo lu tax ñun du ñu am suñuy ngoon ñu nit ngoon yu dëgër hmm? ku ko gis xam ne lii lu dëgër la ñu def ko ay débat yu baax amul xuloo amul saaga amul wax lu bon lépp ñu teg ko ci alquran ak sunna di màggal yonent bi sallallahu alayhi wasallam di yeesal sunu diine pourquoi pas hmm? loolu loolu il faut ñu ñun ñun ñu xam ko te yeewu ci c'est important c'est important léeg nga gis sax nit ñu baax ñu am xam-xam wala nit ñu jàng di nekk di partager ay fi ñàkk fayda ay Neymar ak ay xawma ay ay football ay ay wax wala di di ci ay articles yoo xamante ni c'est du n'importe quoi euh, te yow diine jaa ngi nii l'islam baa ngi nii ah euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu wax addaallu ala alxayri ka faa'ilihi addaallu ala alxayri ka faa'ilihi waaw mooy lan heure boo tegle tegtalee nit lu baax lum ca def ci lu baax yow da ngay am ci tuyaaba ba xamoo lool nit heure boo ko tegtalee lu baax soo ne ko waaw su ñëwee ne la waaw ana jàkka ji nga ne ko jàkka ja jàkka ji fii ngay jaar fii fii fii dem ba ci jàkka ji moom du demee julli ji lu mu julli da ci am tuyaaba <laughs> xamoo loolu hmm? ad daallu ala alxeyri ka faa'ilihi lool mooy lan mooy fi nii soo Euh, partager vidéo lislaam wala nga emee ko wala nga commentaire ko ba sa beneen morom sa beneen ami Facebook gis ko wala mu partagé ko moom it wala mu commenté ko tuyaaba bu mu ci am yàlla lay bindal tuyaaba bu tol noonu ak ñun li ñuy def ci bàkkaar kañ buntu tuyaaba bu ñu gis war nañ ko war nañ cee dugg jël ko mu jariñ ñu àdduna ak donc lool duñ ko toppee fii la ñuy fanaan dama ragal ni incha allah njóogu nag ma ko fàttali dama bëgg incha allah ñu def un jour spécial boo xamante ni on va parte parler de pas de l'activisme parce que isme dama ko xaw ragal mais l'activité musulmane ñun dañoo war di yëngatu nekk sur le terrain <laughs> bàyyi kii bi soo wérdee ba noppi nga jog dem liggéey wax def affaire Facebook bi nga taxaw liggéey soo mënee def sa vidéo yu baax nga def soo ko mënul nga partager nga commenter nga bind ñaan loolu mooy affaire bi mais ni ñu ko bëgg jàppee bàyyi gars yi terrain bi fu ñu toll naan réew ma yàqu na dëkk bi yàqu na nit waaye léegi ñun lu ñu def Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu moom la ñuy wax xaamisul xulafa la cinquième des xalif Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu xam ga lu mu wax daane àdduna nu mbon gi toll rek waaraate bi war naa toll noonu wala mu ëpp ko déggal àdduna nu mbon gi toll waaraate gi war naa toll noonu wala mu ëpp ko hmm? loolu yaakaar naa il parlait de notre époque mooy époque bi lépp lu gars yi liggéey ci safaan teg ko ci ci plateforme yi teg ko ci réseaux sociaux réseaux sociaux yi teg ko ci YouTube teg ko fu mu mënti doon ñu nit au contraire waruñ fee nekk di werante ak di xuloo di xeex nañ jël beneen contre exemple teg ci wet gi jeex na jeex kii du taxawee di saaga yow nga taxaw di tudd yàlla du taxawee di saaga nga taxaw di tudd tudd yàlla parce que kuy saaga doo ko yàggee dégg da ngay mujj di saaga <laughs> waaye kuy tudd yàlla doo ko yàggee dégg da ngay mujj di tudd yàlla moo tax njoogu keroog ma encouragé ko ne ko direct yi ngay def di di teg zikkar yi pendant une heure de temps pendant deux heures de temps ma ne ko waaw góor jërëjëf ngóoj mu ne ma ma ne ko c'est important parce que il faut occuper le terrain parce que am na koo xamante ni tey jii su ta su ci ci page Facebook bi Safina bi xool ne amul benn activité wala lii jàll na wala vidéo gën na ñoo def vidéo yu demee noonu mais su ne dajeeg waa ki kay saaga wala kay wax lu bon wala kay def lu bon wala jigéen buy animé wala ay ku yiwadi mais day am tentation il faut pas lui donner l'occasion d'avoir des péchés il faut le cloîtrer il faut l'aider il faut l'assister à ce qu'il vive sa religion et dans tous les moments fu mu mënti nekk qu'il soit dans le métro dans le RER dans les trains dans dans les voitures partout où il est su amee su sentiree fàttaliku yàlla bëgg dégg turu yàlla bëgg dégg turu yonent bi war na ko am de manière automatique ça il faut le dire moo tax direct yooyu ngay def njóogu ñoo ngi la ciy encouragé bu baax zikar yooyu ngay teg ñoo ngi la ciy encouragé bu baax waxtaan yooyu ngay teg ñoo ngi la ciy encouragé te waxtaan yi sax léeg-léeg gars yi dañ may woone ma ndax yow la <laughs> man leen man la dafa yàgg rek dafa yàgg rek waaye man la man la tàng Euh, boobu volcan laa woon ah maintenant je suis un volcan dormant mais boobu volcan en éruption laa woon boobu maa ngi tàng jër di waaw kay waaw mais man la waxtaan yi daa yàgg nag ay 2006 la 2007 2008 waxtaan yu yàgg la waaye nag euh, macha allah euh, jërëjëf Mbodj yal na yàlla jàppale leen yàgg ñi lay jàppale ñëpp ci liggéey bi ñoom Sembe nag ñoom Karamba Gassam ak cellule de communication bi liggéey yëpp ñu ngi koy gis yal na yàlla barkel barkel lépp parce que toujours ma koy wax ku gis liggéey bi Safina di liggéey doo yaakaare ni benn nit la wala sëñ Mor la juum nga déedéet c'est un groupe de plus de dix personnes ñii ñoo ngi fii ñoom Ibrahima Diop ñoom Mohamed Dia ñoom rasin Li ñoom ñëpp ñoo ngi fii ci France di jàpp ci liggéey bi yaa ngi dégg soo soo demee euh, mm, euh, euh, Sénégal nga dem Dakar Yakham Ndiaye ñoom Sembène ñoom Omar ñang mais ñoo ñëpp ñoo nga ca ñoom mbay fal Ndiaye ñoom Karamba Gassama ñoom ñëpp ñoo ngi ci bokk ci liggéey bi su ñuy nekkee examen ñii di jàpp su ñuy nekkee ci liggéey ñii di jàpp su ñuy nekkee stage ñii di jàpp suñ jàppee suñ jàpp <laughs> suñu jàppee ñoom ñëpp tamit man ma jël relais bi ñun ñëpp dañ ciy bokk di barkeelu di liggéey parce que c'est le travail qui demande ça il faut pas dormir il faut pas leur laisser le terrain il faut pas dormir jot na ñu jug ñun ñëpp ñu liggéey te bàyyi werante bi ak xuloo bi ak xasante bi ak ñiiroo bi ak ñaayo bi li fi nekk ci xadis yonent bi ñu war koo leeral li fi nekk ci ay ay alquran ñu war koo leeral li fi nekk ci ay jàngale yu mag ñu baax ñi ñu war koo leeral dama ne kenn warul am jot di taxawaal minute bu jot war nañoo nekk en action di liggéey bu baax yàlla nañu yàlla barkeel donc ñu dem ci sunu temu euh, tey bi du ma toppee loolu fii la ñuy fanaan mais yéen ñëpp xam ngeen ni li may wax euh, euh, lu am solo la xam ngeen ni dëgg la il ñu jóg moo parce que réer baaxul yàlla ñu ci yàlla sut yàlla ñu ci musal donc euh, ce que je voulais dire euh, dama wax ne la plus grande chance de l'individu sur terre est de connaître l'élu ou les élus de son époque dinaa ko expliquer nii mais tey jii kaamil baa ngi ma tiim alxuraan ji laay ku bëgg yor sa kaamil mën nga ubbi sóoratul anbiya nga préparer tamit sóoratu euh, ak suuratul mulki ak sóoratul fatxi ak sóoratu nuux sóoratu nuux ak sóoratu shamsi incha allah yooyu lañu bëgg wéeru ngir wax ak yéen ci wax ji mooy chance bi gën rëy ci kaw suuf doomu aadama mën ko am mooy yàlla xamloo ko ñi mu ñi yàlla fal ci jamonoom ñi yàlla fal ci jamonoom ñi yàlla namm def ci ñoom teraanga def ci ñoom xam-xam def ci ñoom leer def ci ñoom yërmandeem ah ñuy jëmmi yërmande yàlla ñoom ci seen bopp ah même bu dee nit ñi xamuñu leen yow yàlla xam la ñooñu loolu mooy chance loolu mooy xéewal loolu mooy teraanga léegi euh, wax jooju li koy firndeel wax jooju li koy firndeel mooy ñi alku ñëpp ñi torox ñëpp ñi dem safara ñëpp ñi yàlla xalak ñëpp ci xeet yu njëkk yi lan moo leen xalak mooy dañoo xamul seen ñi yàlla fal ci seen jamono jamono bu njëkk bi ñi yàlla daan fal ñan la ñi yàlla daan fal ñan la mooy yonent yi alayhim salaam rasulullah bi mu ñëwee nag ci la yàlla fal kenn mooy yonent yàlla Muhammad léegi nag à partir de yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag léegi ay wali yu ñooy ñëw ay wali yu ay wali yu wali yu yooyu jamono bu nekk ñoom la yàlla di fal ci jamono moo tax euh, sëñ Kara ni mu ko définir neex na ma lool dana l'élu et les élus l'élu c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wasallam les élus c'est les autres prophètes et les awliya les saints yi mooy l'élu mooy rasulullah sallallahu alayhi wasallam al Mustafa al Mukhtar al Mustafa al mooy l'élu le choisi hmm? les autres élus mooy ñan mooy yonent yi salaam ak kan ak awliya yi ñooñu la ñi ñooy ñi yàlla tànn ñu nekk les élus de leur époque kon ki yàlla dimbali dëgg dëgg dëgg dëgg bu dee da ngaa ak ab yonent mooy nga gëm ko nangul ko yàlla ci yàlla di defal su su comme yonent jeex na mooy ñi yàlla fal ci sa jamono mooy jamono bu nekk yàlla dina tànn ay nit def leen wuliyu def leen ay nitam def leen ay soppeem def leen ay aliyem def leen ñoo xamante ni ay ay mayam ak ay teraangaam yi muy jox jaam yi da koy jaarale ci ñooñ ngir terale leen ko waaw ëpp naa weddi de ëpp naa weddi de gis nga loolu du jeexe ci àdduna rek àdduna tukki maa ko wax loolu du duy jeex ci àdduna gis nga nubu watu su jeexee ci àdduna àdduna tukki nubuwatu nag continuation mooy wilaayatu wilaayatu duy jeex ci àdduna àdduna di tukki maa la ko wax kon bu kenn wax ne amatul waliyu déedéet waliyu yaa ngi fi ba tey parce que yoon wa gaa yi daan jaar ba àgg ci yàlla nekk waliyu yoon waa ngi fi ba tey xam nga lan moo manqué ñet ñu ñu tegu ci yoon wa dem avec sincérité loolu moo manqué mais pas yoon wi ak dem fa parce que yàlla li yor du jeex li mu xam du jeex li muy mayee du jeex cëram yaa ngi fi ba tey waaye kan mooy dem jëli ji ko ba ñu nekkee Maroc wax sëñ Malick Lo ma ne ko ki daan mayee moo ngi fi li mu daan mooyee moo ngi fi ñi daan jël may yi ñoo ngi fi may gaa ngi fi waaye kan mooy dem jëli ji ko <laughs> maître loolu loolu laa ko doon wax ki daan maye moo ngi fi mooy albaaqi yàlla li mu daan maye moo ngi fi mooy ay mayam du jeex mukk wa ma inda ma indakum yanfadu wa ma inda allahi baaqin la nekk ca yàlla du jeex mukk mukk walillahi xazainu samawati wal ard walakin al munafiqina la yafqahun yàlla moo yor mand manga sinu asamaan ak suuf yëpp waaye ñi nga xamante ne ay naafiq la ñoom mënuñoo dégg lool mënuñoo comprendre lool pour ñoom yàlla jeex na am nañu dem ba sax ne yàlla amul dara inna allaha faqirun wa nahnu aghniya am na ay saay-saay yu joox lool loolu loolu musiba mu rëy la yàlla na ci yàlla musal eh, eh, eh, lam doon maye moo ngi fi ñam doon may ñoo ngi fi mooy nit ñi ak jinne yi waaye léegi ci biir nit ñooñu ak jinne yooyu kan moo pare nag pour dem jëli may yàlla yi ndax may yàlla yi kenn du ko jëli ji lu dul ku sincère waxuma ku tegu ca yoon woo waxuma ku dem de ku sincère il faut être sincère sincérité nag kooku mooy denrée rare bi nga xamante ni tey jii moo bareetul ci jamono yal nañu yàlla musal yal nañu yàlla suturaal donc euh, euh, ñi texe ñëpp ci jamono bu nekk mooy tey jii ak démb mooy ñi nanguloon ñi ñi yàlla fal ci seen jamono d'accord kon léegi doo dëppee wax ji li ñuy wax ci français le revers de la médaille le revers de la médaille mooy lan kon ñi texee di ñëpp li leen alak mooy dañoo dëddu ñi yàlla fal ci seen jamono <laughs> ku mu fal ci jamono nga nangul ko yow sa texe dikk na waaye ku mu fal ci jamono nga weddi ko xamal ni yow sa texe di dikk na kon lan mooy si siiñu texe siiñu texe ah sii texe mooy nga nangul ki yàlla fal siiñu texe di mooy lan mooy nga weddi ku yàlla fal mooy li ñuy wax shirk wala kufru dara baaxu ci yàlla nu ci yàlla musal lool moo tax sunu maam jii ñuy seen seen ci kaw ah jël ko bu baax ah muy cheikh alxaaji omar al fuuti radiyallahu anhu al mujahidu al akbar wa cheikhu al ashhar wal aalimu anhu nee na cheikh ku mu mus dajeel ba ba mu làqatoo ci Bandiagara ba tey jii ñu koy gis ñëpp yàlla ñu ci yàlla boole ñi Cheikh Umar ku mu mus dajeel ba tey jii ñi muy dajeel ñi yàlla ubbi ñu koy gis di wax ak moom xam nga lu mu leen di wax ku nangu noppalu conseil boobu rek la jox ku nangu noppalu bind leen loolu leen ko commentaire ku nangu noppalu Cheikh Umarul Fuuti conseil unique conseil bi muy joxe ñaari ñaari phrase la beneen phrase bi laa indiwul ah waaye phrase bi ma intéressé tey jii nga xamante ni moom mooy li gën a sax ci conseil yi muy jox ñi muy waxal ngir dimbali leen ngir teg leen yoon ñu defaru àdduna ak àllaaxira bañ yàqu bañ yàqule bañ a gaañu bañ a gaañe dalay lay wax ne la ku nangu noppalu ku nangu noppalu <laughs> ku nangu noppalu Cheikh Umarul Fuuti nee na nangu noppalu allahu akbar tey sama waa ji moo xam li xew de kodde Adama Aysa moo xam li xew de nee na ku nangu noppalu allahu akbar ku nangu noppalu kon mbir mi yëpp mooy nangu nangu moy cër bi gën a rëy ci cër yi nangu mooy cër bi gën a rëy ci cër yi wala fi sax nee nañu nangu jël na cëru bañ hmm. hmm. yonent bi nee na sallallahu alayhi wa mu ne yéen ñëpp di dugg aljanna lu dul ku bañ lu dul ku nanguwul ñu ne ko kan moo nanguwul mu ne man ataani daxala aljanna wa man asaani faqad aba mu ne ku ma topp man rasulullah danga nga dugg aljanna waaye ku ma ku moy bañ maa topp yow nangu woo Cheikh Omar ne ku nangu noppalu nangu jël na cëru bañ nangu dafa am solo moo tax waxtaan wi dafa xaw a philosophique tuuti la plus grande chance de l'individu sur terre est de connaître les élus de son époque mooy lan chance bi gën a rëy doomu aadama am ko ci kaw suuf mooy mu xam ñi yàlla fal ci jamono mooy lan du xam leen rek mooy jariñ gi Cheikh Omar dégg nga li wax nee na ku nangu noppalu kon da nga leen di xam ba noppi nga nangul leen njóogul yokkul yokkal ci commentaire yi da leen di nangul ba noppi da leen di da leen di xam ba noppi nga nangul leen loolu laay bëgg wax da leen di xam xam gi chance la waaye chance bi dëgg du xam leen rek am na ñu xam ni gaa yaa gaa yaa ngi nii ñii ñooy ñii la yàlla fal ci jamono xam nañ ko waaye nangulul leen nangulul leen ndax soo nangu woon danga nga topp Cheikh Tijani radiyallahu anhu wax na ci jawahirul maani Cheikh Tijani radiyallahu anhu wax na ci jawahirul maani ne man daal jaaxal na ma waa ji nga xamante ni dafa bëgg góob te moom jiwul dara <laughs> nee na ma nit jaaxal na ma ki nga xamante ne nee na diw la sopp te du ko topp allah allah allah allah Cheikh Tidiane nee na man de jaaxal na ma waa ji nga xamante ni nee na moom dafa bëgg a récolter te moom il n'a rien semé te yéen yéen a jàngoon ne on ne récolte que ce que l'on Cheikh nee na man jaaxal na ma ki ne day récolter te moom seméwul dara Cheikh nee na man jaaxal na ma ki ne man diw sopp te kooku toppoo ko kon sopp mooy indi topp sopp mooy indi topp allah sopp mooy indi topp loolu moo tax nit yàlla yi soo ñëwee ñoom li lay tarbiya mooy mahabba cofeel rek la ñuy def ci yow parce que loo sopp topp ko koo sopp topp ko foo sopp topp ko <laughs> loo sopp topp ko sopp topp ko sopp topp ko hmm? xoolal gaa yi ni ñuy demee faas parce que dañoo sopp fo dañoo sopp faas waaye dañoo sopp borom faas waaye dañoo sopp wérdu borom faas xoolal xew-xew yi waaj a ñëw ci Sénégal kenn ku ci nekk sa kër sëriñ fa ngay dem kenn ku ci nekk sa kër sëriñ ngay dem te dina la jaral lu nekk am na ñoo xamante ni fi ne nii jënd nañ seen billet depuis six mois am na ñoo xamante ni def nañ seen eh, eh, xaw ma nuñ koy waxee de euh, épargne bu jàgg wut seeni i billet aller retour wut seen i yóbbal teg ko pourquoi parce que dañoo sopp seen sëriñ dañoo sopp seen suufu sëriñ <laughs> dañoo sopp seen sëriñ dañoo sopp seen suufu sëriñ dañoo sopp seen secret sëriñ Cheikh Tidiane nee na man daal mënumaa comprendre Cheikh nee na man mënumaa comprendre koo xamante ni nee na moom dafay góob dafa bëgg a góob récolter te moom jiwul dara Cheikh Tidiane nee na man mënumaa comprendre koo xamante ni nee na dafa sopp diw te toppoo ko Cheikh na law kaana hubbuka saadiqan la ataatahu <laughs> Cheikh nee na bu nekkoon sa cofeel gi ngay wax dëgg la ci yow wallahi di nga ko topp di ko topp di ko topp waaw waaw koo sopp topp ko koo ma ne wa uy ma sopp topp ko koo sopp topp ko waaye koo sopp topp ko <laughs> wala du noonu man gis naa ñoo xamante ni jënd nañ billet huit cent euros pour seetaan match huit cent euros huit cent euros mooy ñaata sax huit euh, presque cinq cent mille francs pour seetaan ab match ca Barne Bernabé wu xawma foo Messi di footballé waaju gàtt ju ñaaw jooju hmm? huit cent euros huit cent euros pour billet te da ngay jël avion dem waxagooma hôtel ba waxagooma la nga fay lekk waxuma restaurant ba waxuma tenue mayo mayo mayo Neymar bi rek ya est-ce que ne jarul woon ay xawma six cent xawma yooyu six cent euros ah pourquoi parce que dañ ko sopp dañ ko sopp loo sopp dalay jaral dara Cheikh Tidiane nee na sa cofeel du nekkoon dëgg danga topp ka nga bëgg allahu akbar waaw moo tax mu ne bëgg rasulullahi sa alayhi wasallam yi ñuy wax yépp dëgg la waaye Cheikh nee na dëgg dëgg dëgg bëgg rasulullahi mooy topp sunnaam jabal jawahir yépp di ko fekk ndeysaan xoolal gars yi li mu leen jaral am na ñu sopp sàngara dañuy jël benn bouteille champagne def ci 800 euros def ci 1000 euros def ci 1200 euros ñi ñi am na ko xam seen day sopp jigéen da koy may 10 millions boole ko kër ak 4-4 booleeg Bakar booleeg ànd ak moom ba France wala ànd ak moom ba Maroc gis nga gars yi ma ne ma ne la yow soo deewoon ci avion bi sax xaw ma looy wax soo deewoon ci avion bi looy wax soo ak soo soo deewoon ci biir hôtel ba ñu fekk ak moom ngeen dee yéen ñaar ñëpp loo leen di wax loo leen seeni bokk loo leen seeni wax seen i soxna loo leen di wax yàlla lu ko waral parce que dañoo sopp kooku dañoo sopp loolu dañoo sopp foofu jaral na leen lu nekk amna na ku ñoo xamante ni fu Youssou Ndour dem ñu fekk ko fa fu mu mënti nekk ci àdduna bi dañuy jël billet fekk ko fa am na ñoo xamante ne ñeneen leneen mais bërki démb dégg ngeen euh, euh, concert yi war a am fii ci France ci Paris gi mais concert yi fi war a am ci act act euh, star américaine yi seen billet yi jeex na dan naan concert bi par exemple tey la lan ñoo ngi ci 2017 ñu ne 2019 war naa am concert ñu yëgle ko ndaw si wax ko su waxee ni 2019 concert dina am bu subaa jënd nañ billet yëpp te billet yi par exemple 300 euro la 300 euros ci bisu concert bi di nga gis benn fans boo xamante ni day taxaw génne 3000 euros jox ko nit ne ko jox jaay ma sa billet moo tax am na ñu bari fi ne ni dañuy jënd seeni billet pour ci bis bi ñi bëgg a dugg ñu jox leen ñu dem dugg ci pourquoi parce que dañ koo sopp cofeel dafa am solo moo tax cofeel kenn du ko foowe lu sérieux la lu foor la waaw moo tax doy bëgg bëggal yàlla bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doy na sëkk keneen koy bëggaat keneen bëggaat na fekk kooku moom mu bëgg yàlla bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa wala mbëggeel gi koy bëgg mu lay yóbbu ci bëgg yàlla ak bëgg yonent bi déggal baax li may wax koy sopp soppal yàlla ak yonent bi ñii ñoo jara sopp waaye soo demee ba nga xamante ni da ngay sopp keneen ku dul yàlla ak bi na fekk ñooñu ngay sopp tamit seen cofeel gi nga leen di sopp day yokk sa cofeel ci yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooko sopp ko farata la comme ni sopp yàlla ak sopp yonent bi nekkee farata yàlla nañu yàlla dimbali ñu ñëw ci euh, avant ñu ñëw ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñëw ci jam jamono bu njëkk bi alquran wax nañu nañu ñi gën a chance ci kaw suuf mooy ñi nga xamante ne dañoo weddi woon seen élu époque ñi ëpp chance ci kaw suuf mooy ñi nga xamante ne dañoo nangu nangul seen yàlla fal ci seen jamono li ci ëpp loolu wax naa la ne du ñëpp ñoo ko mën parce que nangu du du lu yomb du yomb du ñëpp mën a nangu cër déedéet waaw parce que ku rëy du nangu ku soxor du nangu ku xamul yàlla du nangu ku gëmul yàlla du nangu déedéet te lépp teraanga àdduna yëpp moo ngi ci nangu maa la ko wax ku la gën a nangu moo ëpp cër seen maam alxaaji muhammad njegéen radiallahu taala anhu daan na wax ne kenn musta gis ci àdduna fu céeli céeli céeli loolu di naaw te ñuul bareetul nag léegi ci sunu Sénégal ge fu céeli këfee doomu kanaara céel céeli doomu ginaar rek këf ñu ne ko waaw alxaaji muhammad njegéen lan moo tax céeli gis doomu ginaar cuuju ginaar gis cuuju kanaara te ñoom ñaar ñoo tolloo te léeg sax kanaara mooy xaw a ëpp tuuti war a gën a duuf gën a baax alaaji Mouhamed Ndiéguène ceeli du ñëwee day fekk doomu ginaar gi ne ko cëpp cëf këf ko dem bàyyi fa doomu kanaara gi alaaji Mouhamed Ndiéguène ne ne nangu la nangu rek la nangu ñu ne ko nan mu ne kanaara su seenee jëkkëram muy ñëw rek mu tëdd <laughs> kanaara duy seen jëkkër ji muy ñëw rek mu tëdd nee na ginaar nag balaa jëkkëram a jot ci moom sëyëg moom dana ko feccal dana ko wayal gis nga peccum ginaar yen ñi am xam ginaar xam ngeen ko laa lay jël di ko teg nii ci wet gi waaw di ko def ay ay ay demi cercle noonu la ginaar di feccee booleeg di rukk am na ay way yu ñuy way di ko wayal soxna si naan ko yaa fi gën yaa fi gën a rafet yaa fi gën a jekk yaa gën a baax doo moromu benn ginaar ci kaw suuf yow yaay ginaar yeneen ginaar yooyu la koy wax di ko wax ci làkku ginaar di ko wax loolu <laughs> ah sama gaa yaa ngi ree mhm. di ko wax loolu ci làkku ginaar du ca yem day wut lu mu gis ci ci ci ci dugub ci suuf wala mboq wala lu ñu war a lekk moom du ko lekk da koy may ginaar gi danaan ko yow ñëwal ginaar gu jigéen gi lu fi baax yaa moom lii la koy defal ba noppi soog a sëyeeg moom alaaji Mouhamed Ndiéguène nee na li li kanaara di nangul kanaara gu jigéen di nangul jëkkëram su ko séenee rek tëdd ginaar du ko defal jëkkëram moo tax ceeli fu mu fekk euh, cuuju ginaar këf ko yóbbu su fekkee cuuju kanaara bàyyi ko fa yalla nañu yàlla may nangu c'est important loolu nag bareetul nit ñi léegi moom Euh, xefe xippi rek ñu commencé di woote ay maqaam ak ki cër daraja di woote ay ay ay waaw wut wut prétention yal na ci yàlla musal nangu daal mooy lépp nañ dem ci sóoratul anbiya nañ dem ci sóoratul anbiya alxuraan ji sax su la neexee nga nga wax ne daanaka lépp problème de nangu la commencé fële ca baqara sax su la neexee rabbana la tuaxizna in nasina aw axtana rabbana wala taxmil alayna isran kama xamaltahu ala alladina min qablina ba mu jeex ba ca lépp yàlla day jàngale foofu ñi nangu ak ñi nanguwul ñi am ñu yàlla fal ci seen jamono nanguwuñu seen cër yàlla nañ ci yàlla musal xoolal fii sóoratu al yàlla nee na wa laqad aataynaa muusa wa haaruna al furqaana wa diyaa'an wa zikran lil muttaqin dégg nga de mu demaat ba ci kanam mu ne wa laqad aataynaa ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi aalimin mu demaat ba ci kanam borom bi tabaraka wa taala waxaat ne ñii ma wax ñii ñëpp bul yaakaar ne ñoom kase la des na wa luutan wa najjeynaahu wa luutan ila l ardi barak na fiha lil alamin yaa ngi dégg waaw moo ngi commencé waqul naa yaa naaru kuni bardan wa salaaman ala ibrahima fa wa araadu bihi kaydan fa jaalnaahum laxsarin wa najjeynaahu wa luutan wa luutan tamit ci la bokk yàlla nee na ibrahima ci boppam wa wahabnaa lahu isxaqa wa yaquba wa kullan jaalnaa saalihin ñi ñëpp yàlla da leen a fal ñii ñooy les élus de leur époque yàlla nee na wa jaalnaa wa jaalnaahumu aimmatan yahduuna bi amrina wa jaalnaahumu aimmatan yahduuna bi amrina wa awxaynaa ilayhim fiala alxayraati wa iqaami solaati wa itaai zakaati wa kaanu lana aabidin déggal les élus de de de de tous les de toutes les époques lii mooy seen mandarga lii mooy seen mandarga sóoratu al anbiya xool leen ko ah aaya 66 jëm ca jëm ca suuf waaw 66 67 68 foofu lañ toll su la neex ngeen ubbi seen kaamil ñu ànd xoolandoo ko xool leen li sama borom wax yàlla nee na wa ja'alnaahum ñii ma leen tudd ñëpp ak ñi may waaji tuddaat téema leen tudd ba pare yàlla nee na wa luutan wax naa ko fii nee na wa nuuxan isnaada min qablu fa fastajabnaa lahu wa naj fa najjaynaahu wa ahlahu min al karbil azim fii mu ne wali suleymaana الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين fii mu ne wa ayyuba iz naada rabbahu anni massan massaniya dur wa anta arhamu rahimin fastajabna lahu wa kashafna fa kashafna bihi min durin wa ataynaahu ahlahu wa mithlahum maahum rahmatan min indina wa zikra lil aabidin fii mu ne ndax foofu lay mu ne déedéet mu ne ñoom ñii ñëpp na ngeen xam ne wa adxalnaahum fi rahmatina innahum min as nan dellu ca bopp aaya ba <coughs> ci mandarga yi son borom wax ne ñii ñooy ñi nga xamante ni ñoom laa fal ci bépp jamono maa ngi leen di jox benn euh, information am na bis waxtaane woon naa ko mais euh, leeral luñ ko bu baax gis nga Seydina Ibrahima mii xam nga euh, tudd naa la yonent yi jiitu woon commencé ci Seydina Nuux alayhi salaam ba ñëw ci Seydina Ibrahima alayhi salaam ba ñëw ci Seydina Luut bu leen fàtte nag ne Luut ak Ibrahima ñoo bokkoon benn jamono di nga léeg ci histoire ay yonent dinañ bokk benn jamono léeg-léeg ci histoire ay yonent dinañ bokk benn jamono Seydina Luut ak Seydina Ibrahima ñoo bokk jamono Seydina Moussa ak Seydina Haruna ñoo bokk jamono am na yeneen exemple ma ngoog euh, euh, waaye euh, loolu du temu waxtaan wi tudd naa la Seydina Ibrahim Seydina Ibrahima mi gis nga élection bi ce ce ce ce divin les élus de de de son époque de de de, de des époques Seydina Ibrahima maa ngi leen di xamal ni gis nga bi mu ñaanee yàlla ne wa min zurriyati yàlla maa ngi lay ñaan li nga ma defal nga defal ko ci samay sët Seydina Ibrahima noté leen loolu am na douze mille sët yoo xamante ne ay yonent lañ fukki junni ak ñaar. noteel loolu douze mille sët fukki junni ak ñaar ñoo xamante ni époque yi ñu bokk yëpp ñoom ñooy les élus de leur époque ku leen nangul texe ku leen weddi halku douze mille sët fukki junni ak ñaar douze mille sidna ibrahima am na fukki junni sët ak ñaar kon xam nga Ibrahima loolu moo tax mu am doole am na doole yàllaa ko ko may dëgg la am na doole cëram la am na doole mooy maamu rasulullaay waaye dooleem tamit def ci bokk ne am na fukki junni sët ak ñaar yoo xamante ni kenn ku ci nekk nabi yonent nga mhm. loolu loolu noté leen ko barke mënta ëpp loolu yow ku am benn doomu yonent rek wala sëtub yonent rek yow am nga cër fukki junni ak ñaar <laughs> yàlla ñu yàlla defal barke lépp barke barke mooy lépp moo tax jusqu'à la fin des temps turu Ibrahima du fi jeex mukk du fi jeex yàlla nee na yonent bi sax royal Seydina Ibrahima alayhi salaam tariqa tijaan bi tariqa tijaniya ati tariqa al muhammadiya al ahmadiya al ibrahimiya al xanifiya ibrahimiya Seydina Ibrahim c'est très important Hmm? huwa samaakumul muslimina min qabl la même le terme musulman musulman le terme yone alquran nee na yàlla nee na yonent bi na xam ne terme boobu Ibrahima moo leen ko tuddee huwa min qablu avant ngeen di avant yow ngay ñëw Muhammad Ibrahima moom tuddee na la yow yaag sa xeet ay julit kon Ibrahima am na doole est-ce que xam ngeen ni ci koor gi laajoon naa fi ne ban ñaan moo gëna a rëy ci alquran doo leen ko ban ñaan moo mooy ñaan gi gën a ci biir alquran hmm? laajoon naa ko fi ba ñu tontoo dama leen wax ne leen ñaan googu mooy ñaan gi yàlla eh, Seydina Ibrahima ñaanoon yàlla ne ko rabbana wabaath fihim rasulan yàlla yàlla nga yónni ci waa Màkka ab yonent yonent boobu mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam hmm, hmm. yàlla nee na ñii tudd ñëpp muy Seydina Ibrahima Seydina Moussa seydna isa seydna yaqub seydna ishaq seydna saalix si kon yonent boo tu boo xalaat rek bu sa yonent xel jàpp soo leen suivre soo leen xoolee waxtaan yi nu def ci koor gi vingt cinq prophètes yi tudd ci alxuraan ak trois cent treize yeeg cent vingt quatre ñoom ñëpp ñoom ñëpp yàlla na ñoom ñëpp yàlla nee na wa jaal naahum dama man yàlla maaleen leen def a immatan ñuy ay ay yilimaan ay ilimaan yu jub yu maandu lu ñuy digle ñoo cay njëkk lu ñuy tere kenn du leen ci gis lu ñuy digle ilimaan yu jub ilimaan yu maandu lu ñuy digle ñoo cay njëkk lu ñuy tere kenn du leen ca gis mooy ilimaan jublu yàlla rek te duñ ko dëddu mukk dara du tax ñu dëddu yàlla ñoom ñoo nga ca kanam rek jublu ci kanamu yàlla ay immatan ay imaan lañ yahduuna ñuy jubal bi amri naa ci sunu ndigal ñun yàlla mooy bi wax yi naa bi izni na ay kilifa lañu ñii ma fal ci jamono bu nekk ay kilifa lañu ay yilimaan lañ yoo xamante ni dañoo jub ba noppi di jubale nit ñi waaye jubale bi du seen bakken du seen xalaat du seen gis-gis waaye dañ koy def lépp ñu teg ci téere bi ma indi ci jamono boobu mooy sharia bi xew ci jamono boobu c'est important yàlla nee ñoom li tax ñoom ñu wuuteeg yeneen mbindeef yi man maa leen tànn def leen ay yilimaan ñu jub jubal ñuy defee ñetteel ba ñuy jëf li ñuy jëf yëpp ci seen ci sama ndigal man yàlla waaye am na leneen lu ma leen dollil mooy wa awxaynaa ilayhim fi'lal xayraati yàlla nee na man maa leen yenkewal maa leen waxyu maa leen diffuse maa leen euh, euh, alimenter maa leen jàngal maa leen xamal maa leen wan maa leen orienter vers yàlla nee na fi'lal xayraati jëf yiw jëf yu yiw jëf yu baax fal ci jamono di ko mën a reconnaître mën koo xam mën koo nangul wax naa leen ay indice indice bu njëkk bi yàlla moo leen tànn def leen ay ilimaan ñuy jub di jubal waaye jub jub boobu ñuy jubal dañ koy def nag ñetteel bi mooy dañ koy def ci ndigalu yàlla mooy ñoom ils ont une inspiration divine bu dee yonent la <coughs> day am waxyu bu dee waliyu la mu am ilhaamam bu dëgër yàlla di wax ak moom lu leer nañ mu koy jot yàlla tamit nee na ñoom da leen bëggee xàmmee foo leen fekk lu yiw rek la ñuy def lu yiw rek la ñuy wax duñ dem fu di duñ ànd ak ku di duñ dox ci lu yiwadi duñ dugg ci benn ñàkk fayda benn doyadi soo leen gisee rek xam ni kii ku ñu war a teral la kii ku baax la kii ku yiw la kii ku set la soo leen dajee ci mbooloo doo koy wax ne ko demal jiitu doo ko tey soo dajeeg moom ci biir car car rapide dooy jug ne ko toogal même bu dee yaaka magee 40 ans doo koy jug ne ko toogal ci oto bi doo ko doo ko tey dooy saaga ba seen ko noppi te doo xam lan la soo àndee jigéen ju la ju daganul doo ko séenee teggi te yow xamoo lum doon doo ko gisee rus ko ba mel ni lu ko ragal yàlla nee na wa awxaynaa ilayhim fi'lal xayraat ñoom daal lu baax rek lu yiw rek ci la ñuy nekk benn yiwadi mënu ko gis ci ñoom du seen sol du seen wax du seen jëf du seen xalaat du seen xol du seen ruux du seen xel du seen dara ñoom lu baax rek ils sont positifs du début jusqu'à la fin zahir ak baatin hein moo tax imaamul Busayri wax sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi jiite ñii a'immatan yahduna bi amrina wa awxaynaa ilayhim fi alal xayraati ki leen jiite mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam imaamul muhtadin sallallahu alayhi wa sallam lu mu lu mu wax ci moom dane fi'luhu kulluhu jamilun wa hal yandaxu illa bima xawaahu l inaau ndeysaan soppay yonent bi ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam imaamul buseyri man ni ma koy firee damay wax ne imaamul buseyri dafa bëgg a wax ne yonent bi mooy benn waay joo xamante ni histoire am amul sens interdit lépp ngay nettali de sa naissance jusqu'à sa mort tout tu parles de tout muy rafet di yiw te doo ko waxee ci sëriñu jàmbur ñu rey la doo ko waxee ci papay jàmbur ñu dóor la ba nga dee soo ko waxee ci président jàmbur ñu yóbbu la diffamation maa la ko wax porte plainte laa lay def nga wax ko ci yonent bi ñëpp di fi tasu di jël seen alal jël la ko jox moom dong moo am loolu pourquoi parce que wa awxaynaa ilayhim fi'lal xayraati yàlla nee na man maa leen yenkewal maa leen di alimenter di leen jox ñuy yëg lu baax du ñuy def lu baax ak di ko wax ak di ko dund ak di ko digle duñ ko sax yëg ñoom dañuy baax a baax baax ba duñu xam ne sax ne ñoom dañoo baax nit ñoo naan waaw diw ak baax diw ak baax te moom ci boppam soo demee ci biir xolam moo ngi jàpp ni moom moom du ko baax parce que ils simple ils sont modestes yàlla ñu yàlla suturaal yàlla nee na fi'lul xayraat boobu bi ci gën a am solo déglul aaya bi wa awxaynaa ilayhim fi'lal xayraati wa iqaami salaati wa iqaama salaati boog wa iqaama salaati wa itaa az-zakaati wa kaanu lana aabidiin déglul lii déglul yàlla nee na ñii les élus de toutes les époques soo leen bëggee xàmmee xamal ni ñoom yàlla moo leen def ay kilifa def leen ay ilimaan ñu jub jubale waaye jubale bi ak jub bi ñu koy def ci ndigalu yàlla mooy ñetti critères yi ñeenteelu critère bi mu yàlla nee na man maa leen di waxyu maa leen di inspiré jëf ju baax mooy ñeenteelu critère bi juróomeelu critère bi yàlla nee na wa iqaami salaa wa iqaama salaati ñoom fuñ fu fu julli taxawee ñu taxawal ko dañuy taxawal julli dañuy taxawal julli wa iqaami salaati waxul wa yusalluuna de waxul dañuy julli de dañuy taxawul julli mooy lan njàpp ma sangu ma solu ma laabu toj ga laabu eh, eh, palaas ba dégg nga eh, jublu xibla ga muur awra ga dégg nga xam waxtu ya dégg nga julli gu tee gu gu ga ye woo ga ñuy woo seeni njaboot ngir ñu julli julli ca jàkka ja ca mbooloo ma wa iqaami salaa mooy lii yëpp wa iqaama salaa ca mbooloo ma mooy ñoom seen seen jokkoo ak seen borom ci aarifine du dog mukk <laughs> seen jokkoo ak seen borom du dog mukk ils ont ils sont dans une prière perpétuelle léegi nag gaa yu baax yi doo ñu naan la euh, euh, euh, doo julli mu ne déedéet man du ma du julli dama dul sëlmal xaw ma lan julli gudul sëlmal déedéet da ngay julli sëlmal du tàkkusaanee nga julliwaat sëlmal du timisee nga julliwaat sëlmal su géeyee nga julli sëlmal du fajaree nga julli sëlmal léegi gis nga soo sëlmalul tey sëlmaloo suba sëlmaloo ginnaaw suba ba mat fukki at ñaar fukki at ñeent fukki at ba dee jot yow musoo sëlmal ci say julli ndax tu es dans une prière perpétuelle suñu waxee julli gudul sëlmal lool mooy maanaa bi de loolu mooy maanaa bi de waaye du maanaa saay-saay yi gaa yi yor de bañ a julli sa waxee ñu naan la ñun du euh, yéen da ngeen di julli di sëlmal te ñun duñ sëlmal déedéet sax gi ngay sax ci julli gi di sëlmal bis bu nekk mais attends waa léegi ñoom lu tax lool duñ ko def ci ci añ bi julli gudul sëlmal kañ añ añ añ budul jeex añ euh, añ boo dootul añaat moo gën a simple <coughs> waaye teewul duñ bañee sëlmal ci julli gi du añ bi jotee ñu añ tey bu subaa ñu añaat du reer jotee ñu reer bu subaa ñu reeraat du ndékki jotee ñu reer ñu ndékki bu subaa ñu ndékki waat loolu déggin bu bon la maa ko wax ña ñàkk sëlmal ci julli mooy sax gi ngay sax ci julli juróom tey suba ginnaaw suba ba mat weer ba mat semaine weer ba mat ñetti weer juróom benn weer at ba mat loolu mooy loolu mooy julli doo sëlmal bu leen ko déggee neneen neneen loolu ko déggee dégg lu seytaane la da leen di gaañ da leen di yàqal maa leen ko wax déedéet du loolu de dama ne la bu dee yëg-yëg la bu dee xam-xam la bu dee dégg-dégg la bu dee tolluwaay la am na ñu la ëpp cër lool te ñoo ngay sëgg di siggi di def sëlmal gi ñuy wax waa lu tax doo leen roy te boole xam-xam ba wala book ñoom dañu yow danga am xam-xam bu ñu amul wala nga am yëg-yëg bu ñu amul wala nga am gis-gis bu ñu amul. Hmm? loolu il faut ñu xool ko <clears throat> il faut ñu xool ko c'est très dangereux njoogu na nga répertorier cinq critères yi euh, wala six yi euh, wala sept yi sax hmm? répertorier ko wax naa la benn bu njëkk mooy ay imam lañu c'est des imams ay imam yu jub c'est des imams bien guidés di guider en même temps waaye di guider euh, sous l'autorisation par l'autorisation d'Allah yàlla tamit da leen di inspiré lu baax muy ñeent dañuy taxawal julli julli wax naa la ko ci sharia mooy jàpp julli ak yooyu wax naa la ko ci xaqiqa ci ñitu baati ni mooy julli gu dootul dakk mooy julli gu sax julli suba tisba takusaan nga def ko weer def ko at def ko fukki at ba dee ca mooy julli gu dul sëlmal mooy loolu loolu il faut ngeen xam ko juróom euh, euh, euh, beneen julli bi mooy julli goo xamante ni du dagg mooy jokkoo gi ngay jokkook sa borom cofeel gi ngay am ci moom yëg-yëg bi ngay am ci yàlla du arrêté mukk dooy sangook dooy nelaw dooy doo kontaane doo mere fekk foo toll yaa ngi fàttaliku yàlla di tudd yàlla loolu kese la c'est très simple waaw mu donc juróom benneelu euh, euh, euh, juróomeelu juróomeelu bi nee na wa ita i zakati ñoom dañuy joxe azaka lan mooy joxe azaka joxe azaka mooy soo amee alal ba mu am nisaab li ñuy wax nisaab nga am nisaab doo amee nisaab nga génne azaka soo amee ay xar ba mu mat nga génne azaka soo amee ay ba mu mat nisaab nga génne azaka soo amee euh, euh, soo bayee nga génne sa azaka loolu mooy azaka loolu nag ci nitu charia yi la waaye ci nitu baatini nitu xaqiqa yi azaka mooy nangu mooy nangu bi moo doon wax léegi nii nangu nangu mooy xam nga lii alal ngay génne asaka bii nag yow dangay seet li gën a cher ci yow nga joxe ko yàlla mooy sa xol mooy sa mooy sa jëmm ji nga jox ko yàlla mooy dëggi dëggi dëggi azaka hmm, tey nag moom ah tabarkàlla yal nañu yàlla suturaal waaw lii mooy dëggi dëggi dëggi azaka mooy li gën a baax ci yow gën a fort ci yow gën a am solo ci yow nga jox ko yàlla mooy sa xol sa xel sa ruux sa jëmm nga delloo ko yàlla nga xam ni doo ko delloo yàlla ak état bi mu nekk musiba am nga seet koo xamante ni fóotkatu ruu la fóotkatu xol la fóotkatu ruula la fóotkatu xol la fóotkatu xel la fóotkatu jikko la fóotkatu jëmm la nga jox ko sa bopp ànd ak moom moo lay dimbali di la jox di la wax di la tegtal ba nga mujj set wicc soo setee wicc nag loolu nga setle nga jox ko yàlla loolu mooy dëggi dëggi azaka waaw njoogu il faut après nga dégluwaat nga mën a defaat euh, récapitulatif bi incha allah euh, kon ay yilimaan lañu ñu jub tey jubale di def lépp ci ndigalu yàlla yàlla euh, inspiré leen jëf ju baax lu baax rek la ñuy def lu yiw rek la ñuy def ils ne font que le bien ils sont positifs totalement muy juróom juróom benn bi juróom benn juróom benneel bi dañuy sax di julli juróom ñaareel bi dañuy sax di génn azaka wax na leen azaka mooy lan ci xaqiqa ak ci sharia yàlla nee na juróom ñetteel bi nag juróom ñetteelu siiñ bi mooy wa kaanu lana aabidin ñoom kat duñu jaamu ku dul man yàlla wa kaanu ñoom nekk nañu lana ñeel ñu ñun yàlla aabidina da ay jaam ñoom daal seen iyaaka naabudu lu wér la nangu naa man yàlla gis juróom ñetti critères yii yaakaar naa sama sët Malick Diaw moom ma fi doon laaj waxtaanu juróom-ñett dinaa ko indi incha allah ci jotay jotaay yi di ñëw juróom-ñetti critères yi foo ko gis ci ab jamono yi yonent di am foo ko gis ci nit sukkal ci kanamam jox ko sa bopp nangul ko defaru àdduna ak àllaaxira am yërmande yàlla am ngërëmal yàlla gis nga juróom-ñetti yii alquran la de moo ngi ni ci sóoratu al anbiya aaya 71 ubbi leen ko ngeen liir ko ubbi leen ko ngeen liir ko ngeen xam li ma leen wax 60 aaya 71 suratul anbiya wa jaalnaahum a'immatan yahduuna bi amrina wa awxaynaa ilayhim fi'la alxayraati wa iqaama alsalaati wa itaa alzakaati wa kaanu lana aabidin mooy gaa yu baax yi ñi yàlla tànnal boppam juróom-ñetti critère la boo foo ko gis ci gaa yu njëkk ya xamal ni kii ab yonent la ci kanamam nangul ko ak nubuwaam gis nga comme nubuwa jeex na ndax rasulullah ñëw na yonent dootul am koo ko gis juróom-ñett yi koo ko gis ci moom ci mbindeefu yàlla yi dund xamal ni waa jàngoo xamal ni leer ga yonent ya naanoon teraanga ya yàlla defoon ca yonent ya xéewal ya yàlla defoon ca yonent ya tànn ga yàlla defoon ca ca yonent ya defal na ko waa joojee ci barke boobee mais niveau yi moo bokkul les nubuwatu la mooy la prophétie li wilaayatu la mooy la sainteté moo tax toujours da ngay dégg fii ne yàlla ne wa kullan jaal naa saalihin ñoom ñëpp def naa leen ay ñu baax moo tax sooy julli nga ne attaxiyaatu lillah azaakiyaatu lillah attayibaatu salawaatu lillah assalaamu alayka ayuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalaamu alayna wa ala ibadillahi saalihin gaa yu baax yi gaa yu baax yi mooy ñii yonent yi yu baax lañ moo tax Cheikh na Ahmad Tijaani radiyallahu anhu ba ñuy warante naan euh, Luqmaan yonent la du yonent Cheikh ne qul innahu saalihun waxal ne nit ku baax la nit ku baax yonentan ci waliyong ci lépp a nga ca biir moo tax Seydina Ibrahima alayhi salaam bi muy ñaan yàlla euh, Isxaaqa mi ak Ismaila mi lu mu waxoon rabbi habli min as-saalihin rabbi may ma yow yàlla habli may ma yow yàlla ah, rabbi sama borom habli may ma min as-saalihin ci gaa yu baax yi gaa yu baax yi gaa yu baax yi yu baax yi tey yu njëkkee mooy yonent yi gaa yu baax yi mooy nitu yàlla yi léegi nag lii dafay ubbi beneen porte incha allah dinañ ci waxtaan njoogu noteel ma ko Cheikh Umarul Fouti am na benn chapitre spécial bu mu def ci biir Rimaax di expliquer gaa yu baax yi indice yi ma leen jox nii ñoom léeg-léeg nan lañuy fexee ba détourner ko nëbbatu ci biir nëbbatu ba seen nitu jamono duñ mën a jariñu ci ñoom parce que xam na ni léeg-léeg duñ ko mérité yal nañu yàlla sutural kon euh, sóoratu euh, al anbiya bi soo ko toppee da ngay mujj gis ne sama borom nee na wa luutan wax na loolu ndax ñu ndax foofu lay mu ne wa daawuda wa suleymaana is yaxkumaani fil xars ñoom ñëpp ci lañ bokk ci affaire bi nee na wa suleymaan tamit suleymaan ci la bokk ñoom ñii ñëpp yàlla nee na wa jaalnaahumu a'immatan yahduuna bi amrina ah wa awxaynaa ilayhim fiala alxayraati wa iqaama asalaati wa ita azakaati wa kaanu lana aabidin yàlla nee na ñii daal ñooy les élus les élus de leur époque c'est jusqu'à la fin des temps ñii ñooy les élus de leur époque xoolal yàlla dem na ba tuddal ñu encore bi mu tuddee Souleymane tuddal nañu Ayuba alayhi salaam tuddal nañu euh, Ismaïla tuddal nañu Idrissa tuddal nañu ki ñuy wax Zilkifli ñii nee nañ mooy Ilias yàlla nee na gis nga ñii ñëpp yàlla nee na ñii ñëpp wa adxalnaahum ñun ñoo leen dugal ñun yàlla les élus là fii rahmatina ci suñu biir yërmande innahum min as-saalihin ñii daal ñu baax lañu ñu sell lañu wa adxalnaahum bi rahmatina bii dafa am solo ñu bàyyi ko xel maa ngi ci sóoratu al anbiya ba tey aaya 84 wa adxalnaahum yàlla nee na ñun ñoo leen dugal fii rahmatina ci suñu géeju yërmande loolu wax jooju garaaw yàlla nee nañ maa leen dugal ci sama géeju yërmande maa leen sóob ci géeju yërmande mais xanaa ku dugg ci biir géej sax tooy xepp ku dugg ci euh, bërigo euh, tiir xanaa di nga xonk cur ku diwlin xanaa di nga niin ku dugg ci bërigo gudron xanaa di ñuul kukk kenn dootul gis ci yow lu dul goudron kenn dootul gis ci yow lu dul tiir kenn dootul gis ci yow lu dul ndox <laughs> kenn dootul gis ci yow lu dul farine yàlla nee na ñii wa adxalnaahum maa leen dugal fii rahmatinaa ci sama biir géeju yërmande ba ñoom suñu génnee ci géej googu seen lépp yërmande la allah allah allah seen lépp yërmande la loolu moo tax Cheikh Tidiane radiallahu anhu daal ne allahuma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniyati jawharatul moo tax mu garaaw ayni rahmati nee na mooy jëmmi yërmande yàlla ji ñii dañ leen a ci biir yërmande bi wa adxalnaahum fi rahmatina mu jeex wa adxalnaahum fi rahmatina dañ leen dugal ci biir géej gi génne leen waaye e, alxuraan wa Cheikh Tidiane nee na ah yonent yi dañ leen dugal ci biir yërma géej gi ñu ñu ñu ñu barkeelu leen ñu génn di xeeñ diwtiir di xeeñ fariñ di di e, weex tàll ni fariñ di xeeñ diwlin di xeeñ goudron hmm. ñu génne leen ñuy xeeñ yërmande yàlla di saf yërmande yàlla Cheikh Tidiane ne waaye doo xamee li xew dëgg di nga xam ni géej googu yàlla sóob leen géej googu mooy Muhammad rasulullah moo tax mu tuddee ko ayni rahmati rabbaniyati moo tax jawut kamal kenn xamul lu mu doon sóoratu al anbiya aaya 84 xool leen ko wa adxalnaahum ñoom ñii ñoom ñëpp yonent yi fii rahmatina dugal naa leen sama géeju yërmande ci sama yërmande hmm? géeju yërmande googu cheikh nee na mooy mooy yonent bi mooy aynir rahmatir rabbaniyati ndax ñooñu kase la yàlla nee na bul fàtte wa zannuuni izahaba izahaba mugaadiban fa zanna an lan naqdira alayhi fa naada fi zulumaati an laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gham wa kazalika nunjil muminin yàlla nee na ndax foofu la yem mu ne déedéet wa Zakaria moom it defal naa ko boo dafa bokkoon ci élu élu yi ak Yaxya waaw ak sëtam yi ñoom ñëpp ba ci Mariama moom ci ci yi la ci la bokk ci ci ñi yàlla tànn ci jamono mu ngoog kon ñii ñëpp soo xoolee yàlla da leen tànn ci jamono ngir ñu jariñ waa jamono ku leen topp jariñu ku leen mooy dem sawara yàlla nañu yàlla musal ci loolu yàlla nee na ci sóoratu euh, euh, yaasiin sóoratu yaasiin wadrib lahum mathalan asxaab alqaryati is jaaha almursaluun is arsalnaa ilayhim usnayni fa kadabuuhuma fa azzaznaa bi thaalithin fa qaalu inna ilaykum mursaluun qaalu maa antum illa basharun mithlunaa wa maa anzala arrahmaanu min shay'in in antum illa takzibuun ba aaya ba jeex hmm. xam nga fii li ma fi intéressé mooy li Cheikh Umar Fuuti wax ne radiyallahu taala anhu mooy waaju baax ji ngeen di seen nii ci kaw hmm, jël ko euh, kii Cheikh Umar Fuuti radiyallahu anhu di wax ne euh, ci rimaax euh, li li nit yàlla yi ni ñuy làqatoo seen xijaab yi paravent yi obstacle yi ñuy def ci nit ñi ba duñ leen mën a xam ñu làqatu leen ba dem ndax ñoom yàlla rek moo leen ñor ci yàlla lañu ñu ci la ñuy xam nga le plus grand problème Cheikh Omar wax na ko mais alquran moo ko njëkk indi xaalu hmm? gis nga yàlla dafa yónni ñaar kook histoire la ci Habibu Najjar histoire bu gudd la surtout Yaasin soo ko liiree di ko comprendre waaye dafa njëkk yónnee ñaari nit ca ñooñu waar leen ngir ñu dellu ci yàlla ñoom ñu ne déedéet ñoo bañ yàlla yónni keneen une troisième personne fa azzazna bi thalithin une troisième personne est pour waar leen pour wax ak ñoom xam nga ñoom lu ñu mujj a tontu dane yee eh, sawaay dimbali leen ñu xaalu ñu wax ne ma maa antumu nekkoo leen illa basharun lu dul ay nit yu am bopp ak tànk ak loxo di lekk di naan di tuur ndox di am ay problème di seen biir di daw ngeen di xiif ngeen di sonn di bëgg soxna di yéen ay nit ngeen kese maa antumu nekkoo leen illa basharun lu dul ay nit mislu naa comme ñun vous avez la même forme que la tête le tronc et les quatre membres les membres inférieurs et les membres supérieurs ci ñuy fàttali seen leçon euh, primaire hmm? lii lañu wax ma antumu illa basharum misluna li ma la bëgg a wax fii mooy la plupart des peuples yi nga xamante ni dañoo xalku li leen xalak mooy wax ne waa jii kat ñoo niroo ñoo bokkoon école ñoo bokkoon classe ñoo bokk jàngandoo ñoo bokk fowandoo ñoo bokk nangam yooyu yëpp Cheikh Omar énuméré na ko à partir de ce verset du Coran pour wane ni li ci ëpp ñi def lii yàlla da leen moo tax soo demee ba ci biir yàlla nee na mu ne wa ayatu lahum anna xamal naa zurriyatihim fil fulkil masxuun kooku Seydina Nuux lay wax loolu moo ñuy yóbbu ci euh, sóoratu Nuux bi nga xamante ni soo ko jàngee ci ngay comprendre ne ndekete ñàkk nangul sa yonentu xeet wala sa l'élu de ton époque mën na la indi indi musiba mu rëy rëy rëy exemple boobu la ñuy jël waaye ñu jël léegi beneen exemple bi wane ni topp sa waayu xeet sa l'élu de ton époque yàlla mën na la cee jaar defar sa àdduna defar sa àllaaxira déglul sama borom Seydina Nuux kii waxtaanu boppam la moom dong na nga ko noté njóg mu euh, Seydina Nuux moo def benn rapport comme professeur boo tooñ mu def rapport yónnee ko yóbbu ko ca rectorat wala ca ca proviseur ba fa mu nekk Seydou Seydina Nuux dane rabbi inni daawtu qawmi leylan wa nahaara fa lam yaziduhum duaaiya illa firaara wa inni kullama daawtuhum li taxfira lahum jaaluu asaabiahum fi azaanihim wastaxshaw thiyaabahum wa asarru wastakbaru istikbaara thumma inni daawtuhum jihaara thumma inni aalantu lahum wa asrartu lahum israara fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kaana ghafaara yursil samaa aleykum midraara wa yumdidukum bi amwaalin wa baniina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhaaran maa lakum laa tarjuuna lillahi waqaara wa qad xalaqakum atwaara rapport bii la Sidna Nuux defal yàlla ne ko gaa yaa ngi ni waar naa leen ba sonn Sidna Nuux il a vécu mille soixante quatre ans toog na ci seen biir nag di woote pendant neuf cent cinquante ans fa labisa fiihim hmm, alfa sanatin illa xamsina la yàlla wax yàlla nee na toog na ci seen kër ci seen biir xeetam di woote di woote pendant mille ans yu manqué cinquante mooy neuf cent cinquante ans maaye moom nuux dund na mille soixante quatre ans kon def leen calcul bi pour xam différence bi hmm. sëñ jógoo ngi fi mathématicien la waaw hmm. léegi nuux na leen euh, nuux ne yàlla gis nga problème bi daal euh, comme daal ñii nanguluñ ma la tazar laa tazar ala al ardi min al kafirina dayyaara yàlla ne ko waaw lu tax loolu mu ne ko innaka intazarhum yad yudillu ibadika ibadaka wala yalidu illa fajiran kafaara ba noppi moom daal di sauvé boppam ne rabbi gfir li wa li walidayya wa li man daxala bayti muminan wa lil muminina wal muminat wala tazid zalimina illa tabaara Seydina Nuux ne yàlla ñi doon leen fi bàyyi ay saay-saay lañu ay yéefar lañu dañuy jur ay doomi yéefar ñu nekk ay yéefar ci kaw suuf di yàq suuf si ba keroog yowmal qiyaama rayal ñëpp ci la yàlla indi li ñuy wax la le déluge moom mu daal ne yàlla yàlla jéggal ma gé jéggal samay wayjur jéggal képp koo xamante ni ànd nga ak man yéeg ci kaw gaal gi mooy al fulkul mashxun la euh, euh, gaal rempli googee gis nga soo xoolee euh, alquran ji da mujj comprendre ne ndekete lépp lépp lépp lépp lépp lépp lépp ak xam les élus de ton époque waaw yàlla na fii ci sóoratu al mulki nee na safara lay wax de walilladina kafaru bi rabbihim azabu jahannama wa biisal masir iza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafuuru takaadu tamayyazu min al-ghayzi kullama ulqiya fiha fawjun sa'aluhum khazanatuha alam yaatikum nazir alam yaatikum nazir waaw ndax amul woon ku ñëw ci yéen yéen ñii ñuy saaf ni ci safara di leen fi rosi ndax amul woon ku ñëwul woon ci yéen waar leen wax ak yéen ñu ne aha kay balaa qad jaana nazirun fa kazzabna biha waaw waaw waaw waaw yàlla wax na ko de waaw fa kazzabna wa qulna ma nazala allahu min shay'in in antum illa fi dalalin kabir waaw qaalu bala qad jaana nazirun fa kazzabna wa qulna ma nazala allahu biha min shay'in in ma nazala allahu min shay'in in antum illa fi dalalin kabir après nag ci lañ rëccu nag daal ne wa qaalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashaabi sa'ir yàlla nee na fa atarafu bi zambihim fa suxqan li ashaabi sa'ir gërëm nag ñi ci des daal ne inna alladina yaxshawna rabbahum bil ghaybi lahum maghfiratun wa ajrun kabir te ndax li tax loolu mooy wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimu bi zaati sudur li waral lii yëpp nag yàlla nee na alaa yaalamu man xalaqa wa huwa latiful xabir yàlla xam na lépp ndax amul woon yonent yu ñëw ci yéen aha kay fa kazzab na ku ñëw ci ñun ñu ne daal wa kii daal du waa ji mag ñi nag nee nañu soo toogee di xaar waa ji ku romb nga ne du waa ji dina la romb ñu ne ah waaye nag réccu nañu de ñun de suñu amoon nekk ay nit ñu dégg ndax bopp bu nar a am barke nopp yu dégg la ci yàlla di saxal bopp bu nar am barke nopp yu dégg la ci yàlla di saxal ñun daal duñu duñu duñu naroon a mucc dëgg wallaay duñu amoon duñu duñu xamoon billaay dinañ dégg suñu amoon xel tamit di xalaat billaay dinañ déglu te kon duñu bokk ci ñi ñuy saaf ci biir safara yàlla nee na ah yéen de yen a reconnaître seeni faatarafu bi zambihim yéen yéen a reconnaître ne yéen a def seeni faute yéen yéen a xeeboon waa ji yéen a waxoon ni dara yéen a waxoon ni mënul nekk lii yéen a waxoon ne papaam pauvre la wala yaayam pauvre la wala fiira bokk wala fee la bokk yéen a ko waxoon de yàlla nee na yéen ñëpp ñooxu leen ci biir sawara xanaa xamoo leen ni am na ñoo xamante ni ñoom xooluñu woon jëmm xooluñu woon tur xooluñu woon askan xooluñu woon xoolu ñu woon fan la jóge xooluñu woon dafa weex wala dafa ñuul wala dafa gàtt wala dafa rafet wala dafa ñaaw seen yoon nekk ci woon xam nañ ni daal juróom-ñetti critères yi ma leen jox dajaloo na ci ji sukk nañ ci kanamam jox ko seen bopp yàlla nee na inna alladina yaxshawna rabbahum bil ghaybi lahum maghfiratun wa ajrun kabir ñi def loolu ñi def li ma lay wax nii reconnaître juróom-ñetti yooyu ci yonent yooyu wala ñu reconnaître ko ci nit yàlla jamono yii ba tey jii ma la wax nii yàlla nee na jéggal naa leen te maa leen di may yiwu rëy yiwu rëy nag mooy aljanna ak gisek rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee na ngeen leeral ak ngeen nëbb ngeen feeñal ak ngeen nëbb ci seeni wax ak seeni jëf man xam naa ko man yàlla parce que seen xol bi koy bi ah, euh, moteur bi nga xamante ni fa la xel yi ak xalaat yi di doxe ngeen di xawaatiree foofu man maa ko bind man yàlla alaa yaalamu man xalaqa wa huwa latiful xabir léegi nag mbokk yi euh, Euh, ma loo gis dafa am retour soo gisee yàlla wax ne euh, ñi nga xamante ni dañoo dëddu seen élu époque gis ngeen fiñ mujjee waa kër nuux waa kër nuux waa kër luut waa waa waa aad waa waa waa waa kër nuux waa waa aad waa thamud waa luut waa kër luut yàlla wax na ko wal fajri wa layaalin ashrin wa shaf'i wal watri wal layli idha yasri hal fi zalika qasamun li dhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi 'aad irama zatil 'imaad allati lam yukhlaq mithluha fi lbilad wa thamuda alladina jaabu saxra bilwaad wa fir'awna zil awtaad alladina taxaw fi lbilad fa aktharu fiha alfasad fa sabba alayhim rabbuka sawta azab inna rabbaka labil mirsad yàlla nee na ñii ñëpp ay gaayeel la yoo xamante ni dañoo nangulul seen éliwu époque tan leen a xeeb hmm? jàngal suratul fajri di nga gis li mala wax waaye le revers de la médaille tamit am na au contraire am na ñoo xamante ni ba ñu gisee dëgg rek lañ ko nangu moo tax bokkoon na ci ñaan yi yonent bi daan jàngale yàlla yàlla na ñu woon dëgg allahuma arina alxaqa xaqan yàlla na ñu woon dëgg warzuqna ittibaahu te nga xéewale ñu boole ñu ci ñiy topp dëgg gis dëgg xam dëgg yomb na lan moo jafe gis dëgg xam dëgg nangu dëgg <laughs> nangu dëgg yonent bi nee bokk na ci signe yi wane ni diw naa fekk piir la piir mooy heure bu daanoo du nangu naa fekk piir yonente ko wax de sallallahu alayhi wasallam dema ci saxil Buxaari yonente nee na bokk na ci mandargay ñeenti ñeenti mandargay naafiq yi nga xamante ni mooy les grands hypocrites ah munafiqan xaalisan mooy un hypocrite accompli ñeenteelu daraja bi bi ci gën a rëy gën cee màgg mooy su daanoo du nangu mukk polémiste lay doon loo wax rek dina wut lay ah ano ah d'accord ah non waxewu ko woon nii ah mais nit day humble daanu nga neel daanu na maa ngi jégglu je m'excuse ah xamewu ma ko woon nii dafa loolu dafa baax simplicité la euh, signe de signe de modestie la te loolu moo lay dolli xam-xam yonent bi sallallahu alayhi moo gën ñëpp te yàlla nee na ko waqul rabbi zidni ilman yàlla dolli ma dolli ma kañ mooy ku ma ku doylogul waaye yow ngay doyal yonent nee na naafeq pire mooy koo xamante ne du nangu mukk même su daanoo su amul dëgg du nangu du daanu <laughs> soo ko yeyee ci discussion wala waxtaan du daanu mukk day wut lay philosophie rek la indi ah lii la non nii la man déggoon naa sax leneen ah d'accord waaw wala nga wax ko mu leen ah d'accord waaw loolu xa waaw waaw si si fekk xamu ko woon musu koo xam musu koo dégg waaw ah, doo wax ah, ko dégg ah lii musuma koo xam ah lii maa ngi koy soog a dégg ah, lii lu bees la ci man wa nag ah waaw waaw waaw musoo koo dégg xamoo ko yonent nee na foo gis nit di def lii xamal ni naafiq la nangu dëgg loolu mooy signe pire ci ci ci ku nar a texe ëllëg parce que bu dee noonu ngay dundee di nga gis dëgg bañ ko wala nga koy diingat fekk xal ko nga bu yàgg moo tax ñii yàlla tagg leen ci alxuraan ne ñoom deey gis nañ dëgg reconnaître nañ dëgg waaye nangu nañu dëgg kan mooy l'élu de leur époque mooy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo tax ba muy tagg yonent bi ne waa jii moo gën ci époque bii moo gën ci époque yi jiitu moo gën ci époque yi ñëw yépp moo ko tudd fii suratul fathi huwa allazi arsala rasulahu bilhuda wa diini alxaqi li yuthirahu ala diini kullihi wa kafa billahi shahida lan la ci yàlla teg ah turu waa ji la indi turu sang bi turu waaju baax ji turu wi nga xamante ni soo ko gisee ñu bind ko nga kontaan soo ko déggee ñu tudd ko nga kontaan soo ko tuddee sa toom sa xel dal soo gisee ku tudd tur wi sax soo ko gisee nga kontaan sa xel dal soo ko tuddee sa doom su ëllëgee yaak sa doom yene bokku dugg aljanna su ëllëgee yonent bi da koy xam dalay xam soo ko tuddee sa doom yonent bi yëg na ko xam na ko fii ci àdduna mooy tur wi nga xamante ni moo taaral àdduna mooy tur wi nga xamante ni mooy tur wi ñu gën a tudd ci kaw suuf tudd waxuma la tuddee de tuddee am na mooy tur wi ñu a tuddee Muhammad waaye mooy turu tamit bi nga xamante ni moom la ëpp lu ñuy tudd ci gémmiñ allahuma salli ala sayidina Muhammad Muhammad Muhammad xoolal 300 millions taalibe cheikh yi ku ci xëy def 100 000 Euh, euh, euh, trois cent salaat fatiha minimum trois cent trois cent trois cent salaat fatiha minimum am na ñoo xamante ni cinq cent ñii douze mille ñii ay lim yu dul jeex am na ñoom sax ay cote lañ yor yu xamante ni suñ ko laalee nii day nekk ay un milliard ay un million ay cent million turu Muhammad mooy tur wi ñu gën a répété moo tax yàlla tudd ko fi ci alquran ne wa kafa billahi shahidan shahidan boobu mooy muhammadu rasulullah yàlla nee na sama waa ji dey moo gën ñëpp moo mën ñëpp moo gën a rafet ñëpp min kulli wasfin xamidin haaza afaala tafdil lépp lu baax rek rasulullah moo ko moom waaye ba mu koy moom moomul yëf dafa moom la ca gën xoolal waaye nag rasulullah yàlla nee na baax na de yiw na rafet na moo fi gën moo fi moo lépp mooy mooy lépp waaye am na ñu ko nanguloon am na ñu ko nanguloon am na ñu comprendre woon ne c'est l'élu de leur époque waaw lan lan la ñu waxal yonent bi maa alimtu alayhi min su maa alimtu lahu min su xamuñu xamuluñ ko daralu lu bon bi yonent bi kii dan ne waa ji daal nañ wax di dëgg mais kii kenn xamelu ko daralu lu bon dara bon kenn xamalu ko ko kenn xamalu ko ko moo moo wóor ci jigéen ñi mooy al amin ci jigéen ñi al amin le digne de confiance dajale leen jigéen ñëpp teg ko fii boole boole leen ak Muhammad billahi kenn du ci yàqu alal réew mi yëpp indi leen ko yonent bi sax moo nekk le premier banquier banquier banquier bu maandu nag laa wax waxuma banquier ñoom Kara ñii <laughs> waxuma banquier ñoom Kara Gassama ak ñoom Mohamed eh, Dia ak ñooñu déedéet banquier bi gën a maandu ci kaw suuf mooy Rasulullah moo njëkk moo tax keroog bi muy dem mu dénk bagage yëpp na Alioune loolu xam ngeen ko ci histoire al moo wóolu moo wóor ci góor ñi moo wóor ci jigéen ñi moo wóor ci mag ñi moo wóor ci ndaw ñi moo wóor ci ñëpp sallallahu alayhi wa sallam te boobu nekkagul sax yonent al amin lii gii ñu ko tuddee Mouhamadou Lamine gi avant muy nekk yonent lañ ko ko tuddee waa Màkka yëpp ne gëm ni kii moo gën a wóor ndax juróom-ñetti critères ya ma doon wax ci ne ñi yàlla fal ci jamono toujours moom mooy seen critère yonent bi yëpp la tàpp ak yeneen yoo xamante ni moom dong ko moom bokk ko kenn moom sallallahu alayhi wa moo tax yàlla tagg ñam àndal ne walladina maahu ashiddaau ala alkuffaar jàppal walladina maahu kooku kooku rek waxtaan la walladina maahu ñoom am nañ cëru yàlla yëkkati leen ne ñoom dañoo ànd ak yonent bi ànd ak yonent bi nag amul cër ju ko moo tax maayatu rasul maahu googu mooy cër mooy maqaama mooy daraja mooy mooy lépp ndeysaan mooy lépp ànd ak yonent bi ànd bi <laughs> ànd ak yonent bi ànd ak yonent bi nag sallallahu alayhi wasallam kooku ci sharia jeex na waaye ci xaqiqa ba tey ji moo ngi am ndox sooy julli yaa ngi naan assalaamu alayka ayyuhan nabiyyu ka kenn du ko wax fi nekkul sooy wérd da nga naan hazi hadiyatun bi fadlillahi minna ilayka ka ya rasulallah ki nga koy jox moo ngi nii toog sa kanam kon yonent bi ba tey jógew fii kon ba tey ji on a la possibilité d'être des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu loolu nag mbiru xaqiqa la moo ngoog yàlla nee na walladina maahu ashiddaau ala alkuffar ruhamaau baynahum tareehum rukaan sujjadan yabtaguuna fadlan min allahi wa ridwanan siimeehum fi wujuhihim min athari sujudi zalika mathaluhum fi ltawre wa mathaluhum fi linjili kazarcin axraja shat'ahu fa aazarahu fastaglaza fastawa ala suuqihi yucjibu zurraa liyagida bihum alkuffar waada allahu alladina aamanu wa camilu salihati minhum magfiratan wa ajran aziman gis nga incha allah eh, eh, beneen yoon dinañ ñëw ci critères yi nga xamante ni ku ko am rek yow xamal ni mat nga taalibe ndax taalibe yonent bi nii lañ meloon te sa sëriñ bu dee mat na sëriñ moom day toog toogaayu yonent bi kon yow taalibe bi da ngaa war a toog toogaayu saxaaba yonent bi loolu moo tax Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu amuloon benn yitte ci kaw suuf lu dul fexe taalibeem yépp nekk ay saxaaba taalibeem yépp nekk ay saxaaba Cheikh Tidiane di seen yonent ñoom ñu nekk ay saxaaba lépp loo xamante ne yonent bi daan ko digle cheikh digle ko lépp loo xamante ni saxaaba yi daan nañ ko def taalibe mi def ko su ko defee yàlla yëkkati leen ci maqaama ya ak daraja ak barke saxaaba yi yàlla nañu yàlla euh, jubal yàlla nañu yàlla gindi yàlla nañu yàlla euh, teg ci euh, yoonu siraatal mustaqim xam looñu ñi nga xamante ni ñoom la yàlla fal ci ci jamono bu nekk ñan la c'est très important ñu xam ñi yàlla fal ci jamono bu nekk c'est très important parce que ku réere ñi yàlla fal alku nga yàqu nga yiw rëy nga ko te ñooñu lu ci ëpp ñoo ngi sa biir nga xeeb leen nga doyadal leen nga ñàkkal leen fayda parce que seeni solu parce que seeni jëm parce que amuñu xaalis parce que amuñu tuur parce que siiwuñu waaye wallahi ña ngay yaakaar ñu siiw su leen mboole mi gisee di daw wallahi duñ jaaxle ci ñooñu la daw jëm yonent bi wax na ko bari na koo gis yëre ya tilim kawar ga jaxasoo bopp ba laas yaa ngi ca bët ya bëñ ya setul ah ñandaxit yaa ngi ca waaye nee na lu mu dogu ci yàlla yàlla def ko law aqsama ala allahi la abarrahu moo ngi doon junju ki may tëjee mooy uwaysul qarani radiyallahu anhu uwaysul qarani ah ba mu saxaaba yi lu leen wax maa ra'aytum min rasulillahi illa zillahu gisewoo leen ci weneen bi lu dul takk ndeeram yéen am ngeen chance sax ndax nangul ngeen ko gëm ngeen ko topp ngeen ko waaye am na leneen lu nekk ci biiram te yéen xamoo leen ko kooku waxtaanu boppam la yal nañu yàlla dimbali yal nañu yàlla jàppale yal nañu yàlla suturaal yal na yàlla yokk xéewal yi yal na yàlla gindiñu yal na yàlla euh, barkeel yëngatu yëpp macha allah sunu soppee yëpp seen nañ leen gis nañ leen euh, tabaarakallahu sunu mbokk yi yëpp ci Amérique ci Canada ci waa France yi mbokki xadra bi euh, sunu mbokku euh, itali yi sëñ Mandaw sunu mbokki Espagne yi ñëpp gis nañ leen sunu soppe yi nga xamante ne ñoo bokkoon doon jàng temps yi moom wa lycée yi ñooy ñëw démb soxna Marème Diop ñëw na tey gis naa waa joo xamante ni man xaw kañ laa ko gëj a gis xaw ma mu ngi may dégg wala dégguma Mouhamed Sabali la tudd xaw ma ndax moo ngi dégg wolof ba tey sax ndax moom daanaka dégguloon wolof moom <laughs> mujj gi France lu mujj dem déggatul sax euh, gën a ñàkk dégg wolof moom euh, borom kankune ah donc euh, séen naa ko sànq ndeysaan bu dee moom la maa ngi koy nuyu di ko ziyaara di ko wax ne ko na fexe ñu jokkoo ndax nam nañ ko lool lool lool gën gisee lool gën nañ déggante lool su ma soppee tamit di sama xarit di sama lépp ndeysaan di sama wëllëre ñu war a bokk fii boor a bokk aljanna mooy Moustapha Dieye moom it séen naa ko ndeysaan yal na yàlla dolli la jàmm sunu xarit la sunu soppe la yaayam sunu xarit la maamam ak sunu maam muniru njegen bi ñu tuddee ak sëñ muniru al xalifa ñoo daan ànd muy mag mu baax mag mu yiw wax mu yàlla gërëm yàlla na yàlla góor gi Iba Diagne yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla jéggal yàlla na ko yàlla suturaal tabarakallahu seen nañ tamit euh, sunu soppi yëpp daal gaa yi ñëpp ñoo ngi ci ligne bi di kii waaye nag euh, euh, moo ngoog thème bi man ragaloon naa ni kii dina ñëw question yi ak contribution yi ak commentaire yi dina dina gën a bari ndax ñu gën a mën a échanger bien que sax démb après laa soog a gis ne ndekete yéen li leen gën a marqué mooy wax jooju ma wax ne la plus grande chance de l'individu sur terre c'est de connaître et de connaître l'élu de son époque incha allah bu subaa dinañ waxtaane <clears throat> euh, dinañ waxtaane euh, ñun euh, saggan bi ñuy saggan ci kuy dund bàyyi ba mu dee te fekk kooku c'est un élu de de son époque waaw dinañ ko waxtaane incha allah dinañ waxtaane tamit ndimbalante waaw bàyyi ba nit ki di waaj a dee wala mu dee ba noppi ngay dem di ko dëj te fekk doo joxe woon vingt cinq mille ñu opéré ko waaw loolu dinañ ko waxtaanee parce que démb bi ma waxtaanee ba pare loolu laa seetlu moom la ma nit ñi woo fii ci France wax ma ko moom la ma page Facebook yi euh, page WhatsApp yi groupe yi ñëpp moom lañ doon débat di ci waxtaane ñett yi daal lañ ci tiire mooy yooyu mooy euh, reconnaissance posthume c'est dangereux ak lan le fait d'ignorer l'élite de son époque c'est dangereux ak lan dimbalante bala laa dimbali nga dee yooyu daal lañ bëggoon waxtaane yàlla nañu yàlla dimbali yàlla nañu yàlla suturaal su la neexee euh, incha allah du vidéo bi jeexee tamit mën ngeen continuer di def seen contribution ak seeni euh, seen i euh, question ak seen i critique même seen i xalaat gërëm ñëpp gis naa sama waa ji tamit temps yi moom daf ñoo xaw a tuuti sëñ Abdoul Racine waaw ah, yal na yàlla dolli ko jàmm yàlla ko yàlla dolli xéewal dolli ko sutura dolli ko teraanga incha allah eh, kontaan nañ bu baax a baax a baax baax lu ci jub ngeen xam ne yàlla lu ci dëng nag ngeen xam ne suñuy bàkkaar la ñaan yàlla mu jéggal ñu baal ñu suturaal ñu àdduna ak alaxira jaahi sayyidina wa nabina wa mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah alhamdulilah alhamdulilah sopp nañ leen yéen ñëpp yal nañu yàlla boole sopp ñu bokk dëkk ba aljanna jaahi sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullah jaajëf <laughs> kon ñu dem eh, julli ji incha allah ci kanam